Alhamdulillah TV, la chaîne des valeurs et des vertus. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى بدا على الذي به الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ظهرنا والوالي نحييكم تحيه الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنا بن سلطي الله جد جنت بسلام سلام نيجي على الخليفة سان راليب سن بايدن في بركة القرآن الكريم وادي جيت الشيخ محمد المنتقى di ñaanal nag sëriñ Madior Samb xalifa sëriñ Issa Samb yàlla bàyyi ko fi mu yàgg jiite ay rakkam ak njabootu sëriñ Issa gépp barke alxuraanul karim mu mel ne nag waxtaan nañ ci thème yi bare bare tey nag ñu indil leen fenn mbokk yi fen lu ñaaw la waaye fen tamit lu doy waar la waaye sun borom it mi ngi wax ne waylun yawmaydin lil mukazzibin toskare ñeel na ñi nga xam ne dañuy fen waaye tamit fa bi ayyi alaa'i rabbikumaa tukazziban kon fen nekk na lu rëy rëy rëy tey nag yéen nga xam ne yéen nga ñu doon topp ci waxtaan rek ñu dellu tamit ci téere bu mag boobu muy jawharun nafis fi aqd nasr ahdar ar rais to si ahmad bamba radiyallahu taala anhu bind ko tey nag ñu indil leen fen fen nag boo demee ci téere bi dafa wax ne xaqiqatul kasbi iqbaruka ma lam yakun sabitan bi qawli ulama moy wax lo xamni saxul ci waxi borom xam-xam yi loolu fen lañ koy tuddé kon fenn moy lépp lo xamni saxul rek ci waxi borom xam-xam rek boko ko fenn lay tuddu motax tax mu ne wa huwa qabihun mujibun iza jala laanata dil jalali fi ma nuqila mu ne lu bon la lu ñaaw la mu ne tamit luy waral tamit rëbbug sun borom la mbokk yu rëbbug sun borom lu doy war la ta fenn da koy indi am na ñoo xam ne nag dafa nekk sen lamiñ comme ndékkeeg añ ak reer ni nonu waré mom ñom dafa melni fenn non la wer ci ñoom lu wax rek dañuy fenn te yonent bi sallallahu alayhi wasallam bamuy tuddu ci mandargay nafiq bokkon na ci nak su waxtane rek kazaba su xasee ba waxtaan rek la wax yépp ay fen lay doon kon fen dafay indi tamit naaw ñaaw jikko ndax bu demee ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax bi war na ci ngeen dëggu ndax ndax dëggu yóbbu nit wal birru yahdi ilal janna baax googu nag dafay wammal nit ki jëme ko àjjana wa maa yazaalu rajulu yasdiq wa yataharra wa yataharra sidq xatta yaktuba inda allahi sidqa nit ki bu dee lu mu la wax dëgg la lu mu la dig dëgg la dafay dem ban bind ci yàlla diw doomi diw ab dëggalkat la nga xam ne bu jumoon sax ba safaan dañuy wax ni dafa jum waaye safaan la doon wax muy fen la doon wax fen googu nag ñu nekk nag moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag iyaakum nag wal kadibu wal kadibu nag yahdi ilal fujur nee na fen dafa yóbbu ci nit ki ci ñaaw jikko mooy nit ki bu manee fen dafay dem ba dafay ñaaw jikko bépp jataay duut fa mën toog ndax léeg-léeg nga gis jataay sax am ku ñëw ñu wokkante ne noppi leen moom ko teewul làmmiñam am ñoo xam ne loo xas woo ak ñoom rek dañuy fen nga xam ne luñ la wax rek dañuy fen loolu mooy lan mooy nit dana dem ba tàmm fen tàmm fen tàmm fen tàmm fen ba bo xate sax ca looxul mahfuz dañi bind diw doomu diw ab kat la motax yonent bi ne yahdi al fujur da fay lay yob ci ñaaw jiko wal fujur nak yahdi lan nar mu ne ñaaw jikko boobu nag mu lay yóbbu safara wa ma ar rajul yakzib wa yataharra al kadibu hatta yaktuba inda allahi kitaba mu ne nit ki bu dee lu wax day fen dañuy dem ba bind ca looxul mahfuz diw doomu diw ab kat la nga xamne su juumoon sax bo wax deug dañ nan dafa juum fen la noron wax kon mbokk yi loolu nek na lu mata watandiko waye nek na tamit lu mata a bàyyi xel mu melni nak fen léegi dafa bari lol waye nak liko yok lol nak moy téléphone yi da ngay nekk ca saaw ki nekk table teewoon di la woo soxla la mu wër la yaa ngi table teewoon nga ne ko ah sa waay man daa fekk da nga fekk ma génn de nekkuma fi sax de fekk na yow da ngay fen waaye yaa ngi fi léegi-léegi nag am na ñoo xam ne seeni doom ñoom ñoo leen di jàngal fen ndax nit day woo téléphone nga jox sa doom téléphone ne ko sam papa daa jàpp te mu wóor ko jàppoo wala léeg nga jox ki nga denal ni ko ne ko damaa jàpp te mu wóor la jàppoo loolu nekk na lu ñaaw waaye nekk na tamit lu ñaawlu kon fen léegi nag mi gën a bari ci téléphone yi nga xam ne léegi moom téléphone nit dalay woo nga ne ko waaye foo ne mun la maa ngi bërëb sàngam fekk ne sax da ngay fen euh, ndeysaan maa ngi na nettali benn sa bu reetandu euh, dama mos sa dugg ci benn tata am ko jigéen ko tudd ànd dugg ànd ak doomam doomam nekk xale bu ndaw bi am ko woo ni ko waaw dama laa soxla woon foo nekk nii mu ne ko maa ngi Cees bi ne maa ngi Cees nag bis bu ñëpp a koy xool nag waaye doom ji li muy doon gone doon gone yëpp moo nekk moo jékki-jékki ne ko ah yaay yaay yaa ngi Cees deng deng de nga kon kooku mi ngi jàngal doomam fen sax te kon bari na ñoo xam ne doom fen ñeni fen ñoo leen ko jàngal ndax ñoom ñooy fen ci seeni karam fen gogo nak mu wax ne nag wa huwa qabiul mujibun iza jala la anata ziljalal fi ma naqila wa iz la yaminu saxsan nag illa xarajat kisbatuhu min fihi summa saadat fa tablugu al aras alladi ahla al makan nit ki bu fenee benn fen fen googu dafay yéeg dem ba ca aras fëgg ñu ibbil ko mu ne man maay fenu diw ne suñ borom yàlla nga ko rëbb mbokk yi loolu doy war la nit bu fenee fen gi ci boppam mooy yéegal boppam bu yéegee nag dem ba ca aras mu fëgg ñu ibbil ko ne ko loo fiy def mu ne man la fenu diw ne suñ borom nag yàlla nga rëbb ki ma fen laanahu llahu fa yalanu malik subhanahu min sama maa kulli malak mu ne bu ko defee nag malaaka yi rëbb ko waaye tamit suñ borom rëbb ko وتكتب الاملاك عد العين قطعه عليه بكل دون مين xam ne bépp fen bu ci nekk tamit danañ ko def soixante dix fois mbokk yi fen lu garaaw la soo fenee benn fen dañ koy multiplier soixante dix fois am na ñu ne sax benn fen moo gën a garaaw juróom-ñaar fukki njaaloo kon fen lu rëy rëy rëy la dafa am koo xam ne ndeysaan dafa ne ci dëkk bi mën a fen mën a fen ba lu mu la wax day fen ba benn bis mu génn gis ñoo xam ne ay agresseur la ñu ngi daw di jëm si ci dëkk bi waaye nag munu leen a wax dara ndax ñëw na di leen wax sax waaye kenn gëmu ko ci mu yuuxu jooy ne sama fen mën na fenkat dana alak sama waa dëkk nga xam ne kon xam na ne ñee ñi ngay ñëw waaye nag mën naa fen a mën ba ku mu waxatee gëm looloo waral nag mu alak waa dëkk ba bi ju topp mooy am na ñoo xam ne fi mu toll bokk benn jataay jataay bu ñëw nga bokkate ah day day seen de mooy am na ñoo xam ne dañoo mën a fen a mën a fen ba daanaka buñ gisoon ñaar ñu taxaw sax force suñu ingar eh, am nañ ko interprété boo ca ba nga xam ne danañ ca fen mu ne fen woowu nag kullu xati atin bi xadal jabalin fi uxud xakaahu cheikhuna alwali mu ne fen tamit bu ci nekk dafay tolloog daju uxud mbokk yi daju uxud lu rëy la waaye fen bu ci nekk noonu lay toll kon ñu gën a bàyyi xel fen fen lu doy war la waaye fen lu yëngal aras la waaye fen tamit luy tàqale la ndax ñaari nit réeroo nga fera fera fen ba digënté ba di tàng ngay fen muy gëna tàng ba tax ñoñu mëna a tàqali ko loolu kat fen dana ko def ndax nit dana fen ba yàq ñaari digënté nit dana fen ba yàq digënté jëkër ak jabar nit dana fen ba yàq digënté mag ak rak waye nit dana fen tamit ba yàq digënté ñaar ño xamné ben lañ won waye fen fen dana ko yàq motax nak bayyi nak ci bir fen bobu nak moo wax ne nak lakinnahu li xamsatil aqsaamin qasamahu baadul ahkam mun waye fen nak xaaj nañ ko juróomi xaaj kon fofu dang koy deg ni dafa am fen bo xam dafa war am fen bo xam dafa dagan am fen bo xam ne dañ ko sip am fen bo xam dafa haram mun fa khala jami'an lahu fi addi sittati abyatin bi nazmin jayyid muy nak boñu topé rek bind nañ ko ci juróom benn beuy yo xamne leral nañ ko ci baxa bax mun li khamsatul aqsam qassamul ak kasbu mu ne fen xaj nañ ko juróomi xaj bi ci ndek moy fa minhum man duubun wa minhum ayajib amna fen bo xam ne dañ koo sopp am bo xam dafa war bi nga xam nag dañ ko sopp ci la lay ñëwal mu ni mandubuhu lil xarbi wal irhaabi li kaafirin yuqdaa bil kadabi mu ni jullit ñi ak yéeféer yi di xare nga dem ci jullit ñi nga dem ci yéeféer yi tiital leen neen jullit ñi daal yor nañ arme boo xam ne hii jullit ñi kay seen arme bi niñ amee doole nangam nangam tiital leen ci fen ban deltu gannaaw ba tiit mu ne fen woo nag dañ ko sopp dara du la ci fekk doo ci am benn bàkkaar te sax dañ ci am tiyaaba muy nak wajibuhu li fakki mal muslimi wa maali nafsihi xaqan fi dammi maanaam fen bi nga xam ne dafa war nga xam ne boo ca toll da ngaa war fen soo fenul sax da ngay am bakkaar mooy fen boo xam dañ laa bëgg nangu wala ñu bëgg nga fen ba génn sama yaay ma yónni wala sëñ bi ma yónni wala nangam ma yónni wala nangam fekk ne kenn yónniwu da bëgg sa deret mu dikk nag ci fen kon fen am na boo xam dañ ko sopp waaye am na boo xam ne tamit dafa war nga xam ne bu xasee ba ta ba am rek soo fenul sax dangay am bakkar mu ne makruhuhu nag li zawjatin tatyiba li nafsihi walimnihi tahbiba fen bi nga xam ne dañ koo sib mooy fen bi nga xam ne da nga koy fen ngir di ko neexale sa soxna wala sa doom toog sa soxna waxtaan wi neex rek mu defal la njarum soow nga naan ko rek di tepp ko di xotti ko lu nekk nga wax naa la jëndal nangam naa la jëndal nangam naan sa ka da fen fen woowu nag mënu dañ koo sib lan moo tax nag di ko def mooy ngir mu gën a am mbëggeel ci yow ngir mu gën a am cofeel ci yow kon loolu ñu wattandi ko baax a baax a baax bari na ñoo xam ne dañuy diggaate rek seen soxna chaque jour dañ koy dig di ko dig di ko dig di ko fekk na digg yooyu yëpp ci fen lañ ko lal kon nag loolu lañ ko wattandi ko bu baax mu ni mu baax xuu nag yaa saahili islaahi baynal wara ma fihi min junaayi mu ni fen koy rafetale ci diggante init nit maanaam ñu ne kat diw ak diw dañoo jote nga sol sa dàll sàmm seen kat moog sëñ Modou dañoo jote nga daal di sol sa dàll nag dem ci sëñ Modou ni ko ah man de gis na sàmm seen di wax ci yow loo xam ne macha allah ah ah sàmm seen xaw ma ne woon nii la baaxee ah seen di dégg naa mu ci mu wax ci loo xam ne nga daal ne ah kon kay alhamdulilah nga xam ne ñëwaat tamit ci sëñ Modou ni ko i eh, euh, sëñ Modou sam sen wax ci yow lu rafet de dem ci sam sen ni ko seigne Modou kat lim wax ci yow mom ma sha allah ha wax na ci yow ay kaddu yu rafet rafet rafet loolu dana tax ba yéen ñaar bu ngeen bu ngeen dajé rek da ngeen daw songo fen booba nag mu ni fen bobu fen la bu dagan bo xamne da nga defara ñaar digënté moo tax sax wala fi di wax ne fan wuy defar mo gën dugg yàq mu ne xaraamuhu nag huwa alladi li gayri ma manfaatan sariatan qad ulima fen bi nga xam ne nag moo xaraam mooy fen bi nga xam ne nag biñ ko saytoo amul daray njariñ da ngaa bëgg fen rek fen mooy ñoo xam ne dañ bu toogee ñoom fen rek seen mbir la fen nag dana dem ba nekk jàngoro ci nit waaye nag képp ku bëgg a saafara loolu del saxoo istixfaar ndax istixfaar nag képp ko soxloo saxoo rek da nga da nga bàyyi fen mu mel na tamit nag waaye teewul nag waxaala xawmun kulluhu qabixun wa huwa fi mazhabina saxiixun waaye am na nag ku wax ne nag fen yëpp a bon amul fen bu dagan amul fen bu war amul bun sopp yëpp a bon kon foofa sew sew la mooy waxoon waxoon na la am na bu war waxoon na la am na buñ sib waxoon na la am na boo xam ne dafa xaram waaye kii nag dañuy wax xaala xaw mun ku lu xawee woon fen yépp bon waxuwa sax loolu sax fi mazhabina saxiix moo gën a wér ci suñu mazhab mu mel ne nag lu ñu tërale woon si waxtu jeex na xanaa dañ leen jox kon naafila bis bi rek naafila bis bi nag képp ku ci jullee ñaari rakka rakka bu ci nekk nga jàng ci rakka bu ci nekk nga euh, waaw naafila bis bi mi ngi nekk ñeenti rakka rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon ayatul kursi nga jàng ko tamit benn yoon nga jàng inna anzalnahu fi lel qadr fukki yoon ak ñaar mu ni tamit bala moo jugee fa ko doon jullee rek suñu borom dana ko jéggal mi yépp te tamit dana ko boole ci ñi nga xam ne ëllëg dañuy texe texe ga gën a mucc mu ne tamit suñu borom dana ko musal tamit ci saddum jinne mbokk yi saddum jinne lu bon la kon nag boo naafila rek suñu borom dana la ci muccal waaye tamit mu ne tamit dana la may tamit yoolu ku jaamu yàlla juróom-ñaar fukki junni at muy tamit te dees na ko tamit rambaloo juróom-ñaar fukki junni nit ñoo xam ne sawara yeyoon na leen kon jaala allahu min alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsanahu Alhamdulillah TV, la chaîne des valeurs et des vertus.